asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy bàyyi xel ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yi wala ngeen ñuy topp ci yeneen plateforme yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar ba léegi ñu ngi amati mbégte di àndati ak yéen ci beneen tegtalu ñaan boo xam ne ñaanu examen la ndax comme fan yi dañ cee tollu dinañ ci indi tegtal yu bëree bëree bëree bëri bu ko defee kenn ku ci nekk rek bu la ci gën a jubu nga def ko ku ci mën a def yu bari itam def ko ku mën a def yépp itam def ko ndax mbiru yàlla moom kenn xamul fu mu nekk mbokk yi bii tegtal la bu baax ci kuy def examen euh, ni nga koy jëfandikoo nag mooy da ngay wut ñetti pom pom tufaaxa da ngay ñetti pom yu rouge da ngay wut ñetti pom yu xonq yu xonq muy euh, trois pom rouge defe naa leer na de soo wutee ñetti pom yu xonq walla ñetti pom yu rouge nga daldi wut big bu bees tàq big bu bees tàq moom ngay wut big bu bees tàq booba nag da ngay ubbi saañ bi maanaam da ngay ubbi dangay ngay ouvrir gi da koy aha da koy ubbi danga koy tijji su ko defee nga daldi jàng aaya bi nu wal qalami wa ma yasturuun moo nekk ni ci français nuun wal qalami wa ma yasturuun ñaata yoon danga koy jàng trois fois muy ñetti yoon soo ko jàngee trois fois nga daal di koy ëf ci catu big bi big bu bees boobu nga ubbi nga ëf ko ci cat li fi ñuy binde daal di koy jam ci benn pomm daal di koy jam ci benn pomm léegi kon jam nga benn pom dese nga ñaari pom nga daal di jàngaat nuun wal qalami wa ma yasturuun moom itam ba léegi trois fois daal di koy ëfaat ci catu big bi nga xam ne ubbi nga ko ba pare daal di koy jamaat ci ñaareelu pomme bi déjà jam nga ñaari pomme benn pomme rek la dese nga dellu jàngati nuun wal qalami wa ma yasturuun moo nekk nii ci français de nuun wal qalami wa ma yasturuun moom itam ba léegi trois fois muy ñetti yoon daal di koy ëfaat tifli ko ci catu big bi nga xam ne ubbi nga ko ba pare jamaat ko ci ñetteelu pom bi kon déjà euh, big bi daal euh, jàng nga ci nun wal xalami wa maa yasturuuna euh, ñetti yoon ba muy ñetti yoon maanaam trois fois nuun wal xalami wa maa def nga ko ba mu mat trois fois ba mu mat ñetti yoon waaye saa yooy téye euh, big bi rek boo jàngee nuun wal xalam yow maa yasturuun ñetti yoon rek ëf ko ci catu big bi fi ñu bindee fekk ubbi nga ko nag dindi nga ko biir gi soo ko jàngee trois fois moom nuun wal nuun wal xalam yow maa yasturuun ba ëf ko ci catu big bi da ngay jam ci benn pom waaw jàngaat ko ñaari yoon ëfaat ci catu bi jam ci ñaareelu pom jàngaat ko ñetteel yoon ëf ko ci catu big bi jam ci ñetteelu pom ba ñetti pom yépp mat su ñetti pom yi matee nga jël pom bi denc ko fu kawe même bu kawewul itam nga denc ko fenn rek fekk nag bi nga koy def mooy bu nee subale examen bi bu ñu nee subale examen bi nga xam ne su fekkee examen bi lundi la da nga koy def dimanche waaw dimanche waaw kon danga koy def ci veillu veillu examen bi nga koy def bu dee lundi la def ko dimanche bu dee mardi la def ko lundi bu dee jeudi la def ko mercredi defe naa leer na de bu ko defee kon soo ko jàngee noonu nga daal di denc ñetti pomme yi da nga koy denc de ba suba jot nag bu suba jotee nga daal di koy batale maanaam nga batale ko sa yaay wala sa papa wala sa mag wala sa rakk wala sa jarbaat wala sa benn mbokk rek ko wóolu ne ko maa ngi nii di dem di defi examen bi waaye ñetti pomme yi saa yu ma demee ba dugg ca. salle d'examen ba rek baa baagi ca centre ba ba dugg ca salle d'examen ba rek saraxeel ma ko xam nga yow doo ko mën a saraxe ndax bu buñ koy saraxe dafa war a fekk nga nekk ca salle d'examen ba nga ne ko waaw day jar sax nga ne ko topp ma ñu dem waaw saa yoo gisee ne dugg naa ca salle d'examen ba rek nga saraxeel ma ñetti pompe yi bu defee soo duggee ca euh, salle d'examen bi rek ci jour examen bi mu daal di lay saraxeel euh, ñetti pompe yi Euh, dañuy wax ne incha allahu rabbi day big boobu nga xam ne moom nga def noonu loo ca bindee rek ndam rek nga cee am loo ca binde rek moo xam ci examen boobu la moo xam baneen la waaye nag bul ko abale bul ko abale saa yoo juumee ba abal ko ma sàmba wala ma demba rek toj na doo ko abale de sa giiru dund waaw moo xam certificat la BFM euh, bag licence master doctorat wala yeneen concours yi loo ci def incha allah moo xam diplôme professionnel ngay wut wala académique incha allah daal yàlla dina la ci defal tawfiq ah mbokk yi ñu taxawa di fii rek di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltiin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ndax fa la njëriñ yi gën yaatoo te ñu leen di ñaan aussi ngeen partager lien yi jaa ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.